kadi daal moo bëri doole kadi saf sell te wóor Les véritables bonnes affaires, c'est dans les showrooms CAC ou encore sur le site cacsénégal.com. amna huile amna AO keur ni jay senak Keur ni jay senak amna qualité c'est garanti keur ni jay senak ganima. Keur ni jay senak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 Amoureux du sport, du cinéma et des séries, vivez toutes vos passions sur Canal Plus en février. Réabonnez-vous ou rendez-vous dans vos points de vente. Salut Choose 221, votre partenaire numéro 1 des chaussures. Livraison partout dans le monde. Oh, Royal, Sengold, Gold, une nouvelle vision de la bijouterie. Resto Ataya bi boole ñëpp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 étoile africaine. Johanny Couture, une belle tenue augmente notre confiance en nous. Global Textile Hassan Fall Parcelles unité 12 tu es tous ba day déjà gros à demi gros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 Divine Lingerie, Iba Couture, Yamina Collection, MKB Store, Ruby, l'horlogerie sénégalaise, le Pop Shop, Ara. naa ba ba sumeeku gisuma la ma ne naa ñëw xool fi luy def fi bi. lu may def ngay laaj. damaa gëj a gis ay raxas douche guddi xanaa ba may doog a ñëw ama ah, jàppale la. tey ci néeg bi moo a fees. bi. Hmm? moo tax nga bëgg jàppale. dara xale damay gis sama bopp ci yeew rek bi ah. may doog a ñëw. mais yaay yim lay def nii bu ko jàppee dara sa xol bi la Ya a toj rek su wetu dama laaj jaar ya. ci mi ngi moo ko de en tout cas Awa ñaan ngay togg benn fan mhm. ma nabu di togg benn fan mhm. loolu nga teg ko fan waaw yow ya. Awa Seex wala yaa duggoon ci waañ bi dafa am ño xam yalla da leen mën lo tok ak ñoo xam ne mun loowu leen ko waaw moo tax cheikh la nga gina wa waaye rof gi lo ci def to di ngay wax ni da melni ci man sondel 2 heures xam nga sondel 2 heures yow muy dé ci say yow yow boy dundu di dé ci samay loxo ngay déwé bo ma ñaané baat duma la fassé wonal ci ginaar yi jéema la mën mo ko ndab bi ngay tek sama suuf jàppal ndam. waaye sama gars yi kaa am na de. no yoonu nangu nu de nga xeeñ yéen. xanaa yaa fay dem yow. man man mii. waaw defuma deli nag. fi def delee fay dem. waa monsieur équation. xanaa amati nga équation yow. Ah. dos de mor la mor papa mor. ba ca mbaal ma. xaw ma dóor mër ba ca mbaar ma hmm, defati na gaaf. entièrement loolu équation familiale la dinaa ko lijjanti c'est-à-dire boo reeree ba pare nañoo def cette déposition ok. Bakir. naam cest à suba ñu tase kër Fat Bintou. dinañ teew. papa te reer. góor gi do reer dang may ray bo tew jëm lolo ma jaxal ci yow suba demu ñu CAC nga nan dang dinañ ci la buñ dem CAC li ma wax la ko yàq yow papa bo xamne bu jappé discours du bay nga nan mala yow du wax na dinañ dem dinañ dem no rek le eh na bu gey sa yi nang ci génne góor gi de nga mu bax yi nga mi yàq xam nga lan mo man man man xale yi luma sof ci mom mu ne fu bëgg affaire kilifteef dégg nga yow daal ku moom xew mi rek nga jàpp di rincaa gi gincaa yow doo ñu dimbali dangay xam ku la jox cër waay. na maa ngi si kawam. neex mais papa am na ñu yàlla may mën togg mais am na ñu yàlla may mën a caayan ñamal lii. baal ma càmmoñ bi ay waxal ma ji tuuti. man lii lan la man ataaya la ni mooy thé resto. tey resto lii saf na xam nga li may def bàyyi ma paree yeggali ko te mënoo maa jox ma buux yow lu nga iñaam yow suñu salif yi bokkuñu ma bëgg ma jox la kaas bi ñu ah mbete tey ñun suñuy salif bokkul nii waaw loolu lii kaasu ataaya la fi ay xale fi ay xale ñoo fi toog waaye waa xam nga ni gasal nga sa ci li nga wax xanaa sama bopp bàmmee ci la. salive yi bokkul. waaw ah baax la <laughs> teel a. imam ñu ngi sant bu baax. imam. sant bu baax. naka dong yi. alhamdulilah. imam gëj ngeen gisee. maa ngi ciy tey rek. naka daara ji. ñu nga fa xale alhamdulilah. ñu ngi góorgóorlu bu baax sant yàlla bu baax. alhamdulilah. merci beaucoup. Okay. ngeen naaj man <laughs> nag li ayuma ci. jabet bee tax. alhamdulilah. Ah, mu mel ni gannaaw ñëpp teew na teew nañu. Mm-hmm. Euh, mën nañoo tàmbali waxtaan bi. alhamdulillah Ima, Khalil ak Fat Bintou waruñu won téwé waxtaan wi comme ñom ñoo waral wota. waaw man mako ko sàkk ci ñom nak. nañ leen jéggal rek ndax waxtaan wi ñu ñëmi dëgg rek la fi gis te dégg-dégg bi amana mëna gañ Khalil wala Fat Bintou te ñoom ñooy sëy biig jotoon naa waxtaan ak Moussa mi ak Alaaji Njugo mi ba ñu nangul ma ko soxna na Fat Bintu dafa waxtaan ak moom ne ko Xalil xel mi dafa def xamatul lu muy def xamatul dafa war a topp bëgg-bëggam wala bëgg-bëggu baayam la war a topp jërëjëf imam wax nga lépp waaw euh, alaaji Ndiouga bàyyi la ak kàddu bi naa leen yéen ñëpp di rafetlu jataay bi ndax defar ànd jaamu yàlla la yal nañ yàlla may jàmm imam sa kaddu léegi am na kàddu boo yëkkati fa laay fa commencé dama koy gàttal nag ndax yaa ngi naan Maa Xalil bokk ñu bëgg-bëgg xel yi jaxasoo nag waaye problème bi mooy Xalil bëggul waaye ay mbokku faat bintu ñoo bëgg xalil nangu gis nga dëgg des koy ñeme soo ko raayee rek waxtaan la te su boobaa perte temps la mu am lu ma gëm nag gis nga doon góor fa la coono commencé mm-hmm. waaye góor da ngay assumer sa responsabilité d'accord naa émancipation de la femme ak yooyu yëpp ànd naa ci jigéen mënalal sa bopp <coughs> defalal sa bopp waaye du tee nga am kilifa kilifteef gi nag sa baay lay doon wala mu doon sa borom kër. wala sax sa doom bu góor. ok ànd naa ca kii. Ah, jërëjëf ci kàddu yi rafet na dëggul mm. ànd na it. El Hadj Moussa. ah El Hadj Ndiouga déglu nañu la te dégg nañ la bu baax waaye nag ñu dalal sa xel Thiam ñun ñii di ay mbokki far Bintou Leye xalaatuñu benn yoon di ñor di xalil di ko féetale suñu côté suñu yéene ñun ñëpp mooy xale yi am jàmm. Mm-hmm. loolu kese lañ bëgg. te ma fàttali la nag ni lay jataay bii ñuy def suñu warteef la. communication c'est la base. li xew nag mooy mbir mi dañ ko dëpp keroog ba nga xamee ne xale yi jubaluñu rek la jataay bi waroon am. Imaam man de analyse bu gàtt rek laa ci am ndax nag ñoom dëkk nañu France lu ëpp ñaari at macha allah kenn mësul leen a atte kenn mësul intervenir dara ci seen diggante mësul am problème man nag ndey sama doom daal li daal xelam su fekkee ne dagan na dama ko cay fas yéene gunge incha allah waaw. ku dégg sa wax daal dina xam ne yow sa mbégte doom jaral na loolu nekk. bu ñu fàtte ni ñaar la sa doom ak doomi keneen topp lu neex sa doom nag baax na de. waaye am na lu ko gën gis nga ñaari way dencante yi topp seen bëgg-bëgg loolu moo leen di dooleel ndax xam nañ ni négocier dafa xat hmm. alhamdulilah euh, léegi nag ni ñuy def euh, maa ngi jégalu si kàddu yi may waaj a jël ndax xam naa ni boo xoolee jotaay maa fi gën doon xale waaye dama déglu ñaari waxtaan yi xam ni sunu ñaari famille waxtaan te bi benn lan te leer na ma ni famille bu ci nekk jàmm la yéene moromam kon pourquoi pas ñu bàyyi Khalil Thiam ak Fat Bintou mi nga xamante ni ñooy ndey mbili ñu waxtaan seen biir xool seen avenir ñoom nanu ko bëggee mu doon seen soowu bopp. loolu daal laa gisoon. loolu lay dëgg. loolu lay dëgg nag ah, ah ba tey rek waaye nag Mbacké. amoo kàddu yoo ciy sànni. ah <laughs> déedéet wallaay comme papa wax na noonu ba trouvé nañ consensus moom sant yàlla rek. Hmm. te kii li mu wax nii ak moom a ko waxtaanee woon daf maa ñëkkanteeg man nii rek <laughs> eh, maa ko wax na ko rek benn la. donc sant bu baax. xanaa ñu def ñaan rek.

J'en étais sûre que de moi seet Princesse, comment tu vas? Maintenant, je suis bien. Bah, mais woo ma on a fini au début. mais n'empêche m'a fait le jóg de yow. je peux dire que ñeewantal moo taxoon mënu ma ñëw jàkkaarloo di la xool ci tey dama la dafa ku ma àndaale. là, ça va Ça, ça va Léla. man maa indaale Faté pour dajalé. pour que ñun ñett ñi ñu mën a nekkaat ci jàmm Léla. yow sama manga. Té. dama la bëgg-bëgg bo xamanteni ni awma sax sago ci yow yàlla xam na ko waaye faa aussi sama jabar la sama xarit la fi mbëggeel jeexee fa suñu bos commencé su ngeen noonoo wee ñaar du ngeen sonal kenn ku dul man dañuy xeex di jote di gaañante mais on reste une famille ñu indiwaat jàmm suñu diggante babe mën nga ma may ma waxtaan ak Layla s'il te plaît cela seul T'inquiète pas, tout va bien se passer. D'accord. Princesse. Je vous laisse à tout à l'heure. là je suis sañoon de mais apparemment ton état est assez fragile te pas dara à le non plus Tu fais que na Mieux commencer dans le cas contraire je comprendrai parfaitement. Enfin, je suis vraiment désolée.

fii la yem ci àddina. kon nan laa war a tontu. loolu du looy tontu yëg-yëg lay doon rek danga koy yëg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal nañu ne yàlla bala nga koy jaamu danga koy xam soo xamul sa bopp xamoo yàlla noo koy jaamoo. xam yàlla. waaw bu ñu xamul fu muy yem nan lañ koy xamee. gëmm sa bët yi te ubbi sa xel mi silmaxaa ngi gëmmi bëtam tey gisal xelam xel mooy nit na nga bàyyi na xel lépp lu yàlla bind ak li nu wër dee ci bàyyi sam xel dangay xool yàlla ni mu sàkki asamaan ak suuf nga xool ni mu sàkke guddi di mu duggante bëccëg nga xool géej gi mu teg ci gaal def ci ay ñam ñu di ko dunde lii ma la wax lépp yàlla nee na ay siiñ yu mu lay wan la dangay ubbi sam xel di ko xool mooy tax nga xam sa borom يلا نموم بورم خلي لي بخل السلام عليكم وعليكم السلام ايه نروح ولكي ما ما يجي قالوا لي بريزانتي وما صح من الشيخ تيجان كاسي دومو مريم بارو تشاب اه نغاد ما في ما سانتي انا واكرغا نيفا الحمد لله الحمد لله بسم الله توكل baa du njuga moo la yónni dañoo xool jabaram. Euh, non non sama maam yónniwu ma de. sa soxla bopp moo la fi indi wala xargata moo la fi indi xadi hmm? yow mayel kii ndox mu naan. nga def nag. maa ngi fi maa ngi sant yàlla bu baax. naka waa Ndakaaru. ñu fa ñëpp si jaam. ñëpp a ci jaam. alhamdulilah. alhamdulilah. jërëjëf. Eh, doo sukk. xam ngaa war ngaa mën a sukkal ku jóge Ndakaaru ba fii war nga koo mën a sukkal naanal bu baax naanal ba màndi naanal mu dolli dox mi. non baax na loolu doy na. naan naa ba màndi. alhamdulilah na rees ak jàmm. amin amin xanaa da hmm? <coughs> koo nopp xanaa. <coughs> <laughs> daal xale yi ñoo ja <laughs> yéen a yéen a yi defe naa ni yéen a ci mujj a jaar yii <laughs> seen i caprice de nit ña. asalaamaaleykum waa kër gi. maaleykum salaam. moo leen ne. oui fii ñu ngi ci jàmm. ça va bien ça va. xam nga na nga def

ba pare qualité la mhm. eh, firi firi yi laa bëggoon a gis luy loolu yow waaw yow fi ñuy saafee ginaar yeeg firit yi nga xam na ngay balancer rek mu ñor yow seer nga rek loolu na bax pour papa Ndiouga mhm. ah, nag jéegu puso laa nag bakki pour man rek nga mm. ngi ne may jënd jëndal waa kër ga yëpp yow soxna si mën naa gis machine à laver yi man moom fottu guddi gi moom sonn naa ci trop eh, sama jëkk sama jëkkër ji daal nag daa engagé ah <laughs> da ngaa engagé tey de Wah, wah, yow iya, lii du boobul saka soko na bu bàkk yi naka mu mais grand tey da nga ànd ma dem génn quoi ah man de bi man de ma la gisee hmm, damaa tiit man toppandoo yéen it ah da ngeen ñëw duggal si sen appartement bu bees waaw dañoo ñëw pour xool quelques électroménagers yu ñu mën a jënd le temps que ñu gis appartement bi ah c'est bien yàlla na leen yàlla may bu baax ah mais hmm. sa jëkkër ji defoon naa ci ruqu appartement bi de la doon toog di di di ah Mais c'est l'amour. Ma chérie, dis-moi, Anissène 7 ou 24 pièces assiettes Elles sont là. Madame Oui. Moi aussi, j'ai demandé assiette de 24 pièces. D'accord. <laughs> Mais Khalé Foo jógee nii. grand. Hein? moom dañu génnoon rek. xëy na yaa ngi mais c'est normal di woo. Hein? yi ngeen ñor rafet na de yow. merci. <laughs> est-ce que doo ma embelleel cette belle, sauf na j'aime bien. d'accord amul problème. eh maa la ko njëkk wax madame embelleel ma ko. non jarul xëccoo am nañ deux formats amne bi, bii bi aussi. xoolal comme moom sama mag la. Mhm. amul problème bàyyi ma bàyyee ko ko jox ma beneen set j'aime bien. waxoon naa la tamit bëgg naa Hmm? wax naa la ko mais faaw da ngay xool ce goût bopp nag tey jii maa moome nag damaa ñëw am sama goût spécial yow taawu Peccor Gueye. xanaa boutique bi yëpp nga nar a jënd tey. waaw loolu nag tey jii boutique bi dañoo am chance ndax nag famille Babel lañ fi am ah taawu Peccor Gueye bi caatu caatu Babel la nga ne taxaw. léegi xoolal wan ma thermos yi ngeen am pour ramadan bi ak yooyu s'il te ma chérie. madame dis-moi moi si je peux voir les thermos s'il vous plaît. ok. Nabu gis nga paakaay. waaye yow pour ça c'est très dangereux di mais dafa ñaw waaw léegi na nga jubal ko ci man soxna si yi tamit dama siy jël na bu jëloo si mm, mm, mm. ah daa <laughs> si lu ma fi def xadi boo bëggee dégg-dégg man mi sax xaw ma la laa fi def xaw ma sax nan laa def ba ba yegg si fii dama yeewu sentir besoin wu ñëw pour xam gis ci loo nekk Hein, je vais très bien. Justement, Radi, tu n'as pas l'air bien du tout. Ah non Non. Tijan, décision, Bumajal. Peut-être que ma femme ne pas comprendre. Mais toi, si. Bima ma dans ni da nga dem village j'étais très inquiet pour toi mais bi ma li am fini. So faté fàttee sa bopp tuuti di nga jàng lu ci sa aduna. te dina la jëriñ. xam sa xarit bi mere na ma de. Ousseynou dafa xamul rek et toi aussi tu dem sans explication amana bu ngeen ngeen tok waxtan di ngeen pourtant gént naa ko démb bu bizarre. ah ouais. Mm-hmm. mais euh, kii man sax comme le lan lay donné. mes rêves mes ambitions tout tombe à l'eau adieu est mon émancipation Ce li ngay woowee émancipation de la femme du Je nga baal ma mais jigéen buy mbaraan go pour assouvir ses capacités intellectuelles kooku émancipé jigéen bu yakar si góor tamit pour mener la belle vie kooku émancipé wul Khady jugé ma la de xadi dama lay expliquer rek pour nga comprendre gis nga jigéen bi laal taabalam si bopp koñ bi di jaay gerte wala ki yenn siwoom di dox si naaj bi tàng bi di jaay yaakaaru lu dul si ñaqam pour jënuñu kooku nañuy woowee jigéen émancipé wala ki nga xamante ni dafa toog bureau yaakaaru promotion lu dul si ay capacité intellectuelle

Votre série revient après la pub. Rejoignez-nous sur la chaîne YouTube Marodi TV International et découvrez l'univers de nos séries francophones avec des histoires captivantes et des personnages inoubliables. Marodi, inspiré par vos émotions. Kadi saf sell e te wóor. ak ponche la fekk baax seetaan seen programme ak boisson ponche yi di teral gan yi ak di seetal xol yi. ak ponche rek teraanga fii la fekk baax.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 xanaa war ngaa xam lan mooy waral jataay bi. Mhm. sa soxna wax na la ko biig mhm. loolu laay déglu dama xam ne balaa maa jël décision naa la may temps de parole ba pare loolu laay déglu nag. waaw El Hadj Ndiougo wallaahi naa la waatal ni li am nii duma ci dara. aw so aw sos wu ñaaw leen jël teg ko ci sama ndodd wi waaye nag ma di la xamal ni or bi nin ko paqueté jox ko moor moor ubbiwu ko moor laalu ko moor xoolu ko ninu ma ko joxe noonu laa ko jële jox ko ki nga xamante ni moo ko waroon a kon yaakaar naa bu amee dara lu ciy ñuul nan ko laaj ki nga xamante ni moom moo ko yóbbu xëy na moo luubal loolu. Mamadou moo yóbbul soxna Jalika chaque jour ay commande léegi yow ñaari jët bracelet yi nga xamante ni fekk nañ ko sa sac la ma ko si def wax si loolu. lii kañ kon daam lu muy nuru. ey yow bul ñu yàpp bul ñu fontoo quoi jël suñu der xëpp ci suuf ba noppi bëgg a taxaw di ñu fontoo avouer li nga xam ko def si ñaawteef sa soxna mën am fu muy taxaw sama papa noppam. mais Sadikh. Sadikh Thiam yaa ngi may bëgg a yow lan la yow ki nga fekk ba këram ki jël sa ciseau fekk ko ci waxatu tay nga tej ko fi diñ ko sacc mel na da ngeen ko gëm. kon nijaay Mor dafa jay bijou yep ba mu dese ñaar mu dugal ko ci sagam sagam bi mu bàyyi ci mbar mi ban entrer le mort am pour sacc commande bi. yooyu eh, da ngay lacc wala da nga xam ki njublam bu mag la turiande mo taxul mu naroon dem gasso c'est-à-dire tu manques d'objectivité. bien vrai que nijaay mort togn la togn bu metti ci góor lolo waral sa gis-gis fi ci kabi da fay lëndëm du mané nak nag Mor sàccul waaye li ma dégg fii yëpp du tamit Mor mo sàcc et encore elle est circonstancielle n'importe qui peut prendre les bracelets et les mettre dans son sac mort kenn du la porter plainte waaye di nga génn mbaar ma ba lii leer est-ce que dégg nga li ma la wax. dégg naa bu baax li nga wax Alaaji Njugo waaye man itam du ma bàyyi mu sedd noonu bu soobee yàlla lii danaa ko topp lijjanti ko ba mu leer nañ ma setal sama der quoi. ndaay xale ñëw. <laughs> asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. Eh, ça va xew fi. yow xamoo lan moo xew fi. gàddu sa micro-ondes sa jabar jiital la ah yow commande Jalika bi sax sa xëy sa yoon nekku ci xoolal ma Ibnou Thiam moom nekkul mbaar ma nekkaanu fa te mi ngi nii impliqué wu ci. waaw Marème Thiam ay <laughs> eh, waaye massa coono yow ci tiis bi yow li metti na nag Marème aw kan la mat nattu dal. ah tiisum sàcc mi sàcc. amoon ah, nga ci tàkkusaan de sa bës a feeñ. waaye man dinaa digal di yéen mbaar ba. Hmm. salaamaaleykum mbaar ba salaamaaleykum sàcc. ba ma ñëw ba ma ñëw mbaar ma lépp dina réglé wu. yow looy seytaane looy def fii. bokk ci famille bi rek. ñu ne bala may saw. jël fii. mbëkkoogoo sax. <laughs> Ndiaye Mor. <laughs> nina na la yàlla yàlla bindee gis nga sa njubadi gi dang koy yeggalee ya ci nanga nungu tuk ngay mel xaj c'est vous monsieur Pen ah bien sûr ah d'accord la pen l'homme qui n'a jamais perdu sa valeur biir Stockholm loolu pëndax buy bu la jagal jagal asamay démarche non bis boo gis bis lay xaar baa muy fay bis ne coppet sama visa le pays en couleur Sweden oh loo mun mu jeex. monsieur Pen yeah. en fait euh, dama ñëwoon pour jox la benn xibaar. par rapport ak sa demande de visa bi nga defoon ci Suède yàlla na dafa dogal antuwul ñu rejeté sa demande de visa. jël sama revanche fayal sunu maam yi suédois yi am ngeen cëz. one by one nag. du ma leen jaarale yoon. monsieur Pène monsieur Pène. Suède du ay caaxaan. monsieur Pène. ma waxaat li ma la waxoon léegi rek mooy que demande de visa bi nga defoon pour Suède dañ ko rejeté. en fait tu m'as fait rire quoi. ah bon. Mhm. ci nan. visa man maa koy am na xam nga ne kaaw du mbaaw am naa bronze am or. am argent man ñaanuma damay foqati te damay am par force j'ai été clair no euh, monsieur Pène ginnaaw maa ngi nattante ak yow boobu ba léegi di la expliquer nanguwoo comprendre dama bëgg nga génn sama bureau. génnuma sa bureau tant que jotuma sama visa. génnoo génnuma waaw xaaral ma woo agent de sécurité. Hmm, agent de sécurité il s'habille mal quoi. lan la dafa mel non, fi de. lan la. sama yaay non, non, su non, non, non, wax tamit non, de. non sama papa non, non, commande bu importance non, non, non, non, bi. lan non, Safia xoolal defal naa nga ma benn par benn ma comprendre. mais yow na moo leen wóor ne sa papa moo sàcc affaire yi. yéen ñëpp paase nijaay moor moo leen nara a nax te pourtant. pay ya, juum. kan mo am intérêt di piéger son papa son papa man am ben non pas sa papa mais yow nest pas couleur sa papa wala couleur sa yaay la la non. deug la mais man gisuma ko wara ya, tax. Yeah, okay. moom rek moo la sonalee noonu te man Laye gisuma lu muy gañe ci mbaar bi parce que vue de luxe bi muy mënee dafa yàgg tey sama xel. am na benn bijouterie bu ma yóbbu woon jour bu may teelee sama takkaay sûrement bu fekkente ne moom moo ko jël dina contacter waa jooju pour revente. yow nga na nga teel sa takkaay pour lan. xanaa ah, sa demu Canada moo tax. soo ko papa ak waxu laay lañ nekkoon di wax depuis sànq te bu gis ma nopp boobu ba nga jàpp ne mënatuma tontu de. man mère Fama dina ma fajal sama soxla li ma métti woon si dina ko faj mais instant bii dara métti tam. jël tooñ rek yow. <laughs> waaw lii de fàtte woon naa ko sax pour man sax dafa réer. de rien. kañ nga fi ñëwaat. man sans dépenser sama réer ngeen def leer na par rapport ak appartement bi. ah ma bien sûr nag yow tamit façon am yaa moom de façon papa Ndiouga Khalil bi mu waxtaanee ak moom ba pare daf ko xamal ni que mënul génn kër gi tant que amul këru boppam. donc du coup c'est là qu'il a décidé finalement au lieu ñuy louer mu un appartement bien et c'est la meilleure des choses à faire quoi on en a discuté et on est tombé d'accord sur ça. dafoo mais tu aimes faire la folle quand ça t'arrange so beugé dara ñu ko xam nga né amul benn problème na xale responsable rek kenn bañ ko jital su ko défé lu ngeen di def ngeen defandoo ko ensemble waaye nak sa goro bu jigen mama Oumou lu xew bima ma fa démé la fois passée loolu kañ la yaay yëguma ko woon. li ma wérte wóor mooy su ngeen demee ci seen appartement ba yaa Xalil loolu lay jël comme argument. mais ma maman xam naa ne bëgguma donc jukku moom lu mu siy xalaat man concerné wu ma bañ du bëgg de. bëgg tamit du bañ. ay fa li nga war a xam bari na de yow gis nga moo umu yaay la rek yow yaay naxante ak mom lo wara wax wax ko gis nga bu jaré nga fos nala ko jaral mais rafetalal te nak bul mësa tontu jamais bàyyi li ci dess nit ñi gisal seen bop mais ma Xalil mom mom moy fa xamna la de psychologie inverse nga def. sois sincère avec ton mari teggil ko pression bii lépp loo xam ne da ngeen koy def ngeen toog waxtaane ko yeen ci sen biir décider ndoko ko defandoo ensemble jël lepp nak en compte. d'accord mais ma lan mo changé ci diggante bi ba nga may pousser à ce que ma dellu kër ga ak li fa xewoon lepp ak li ma fa def lepp tey lan moo tax nga may ñaax pour ma dellu foofu noonu. loolu la sax xam nga soo gisee ma bëggoon nga génn ca kër googu mooy la nga fa doon dund mu metti lool léegi nag su ma bëggee nga dellu comportement xalit la dama doon bañ nga dellu fa la nga fa dajoon nga dajaat fa lu ñu toll waa lu ko gën a metti mais nag alaaji njuga wax xalit taxaw fu mu taxaw ba nga jaral ko mu jënd appartement pour taxawu la ah fa sa jëkkër bu mu la gëna goré gore dégg nga bu baax li ma la wax d'accord dégg na la ma dina wo Khalil su ko defee ñu gën sé discuter gën sé waxtaan lén rek moo ma jaaxal bu gay mi bakkanam tek ko ci suñu appartement bi dina ma rey <laughs> Ma, maa ngi jégalu bu wér ci woote bi donte maa gën a tuuti si jotaay bi eh, ngeen bàyyi seen yite yëpp pour ñëw déglu ma te dafa fekk ni dañuy jiiñ sama papa sàcc ci mbooloo bii la woon yaakaar naa ni tey su ma ñëwee pour setal deram yoon la mbooloo bi fekkee waat ko mm-hmm. ñetti weer a ngi nii maa ngi saytu mbir yi te li may gën a avancé rek di gën a jege dëgg yi te dëgg bi mooy Laye Pène moo dëpp commande Jalika bi jaay oor yi yóbbante ko përëm ba pare taxal sam papa Cheikh comprendre naar bu baax doon doom ak li sa baay def nii du neex a dégg waaye nag da daal rek kii laay pen jaay or yaa nii te yàgg nay liggéey ak moom li ma defee samay recherche ak samay information du loolu kese laa gis leneen laa gis. eh loolu mooy lan. maam laay yàgg na sàcc mbaar bi. Hmm? muy ma li ngay wax ni mënul nekk. yow eh mayel kii mu daaneel noo noppi. nga matériel liggéeyukaay yi mu laay pen doon jënd yëpp dara baaxu si te à bas prix la ko doon jëndee pour après mën a def surfacturation. ok léegi laa koy woo. da ñeme responsabilité. bu ñu xeere ngay ngay aara. waa eh ñun luñ fi indi dañ ci dul mooy dëgg ñu tax a toog fi nañ ci wax. li ñu fi indi daal mooy takk saanu baabel bi. te ren gii nag awa cheikh mii moo ay tàkkusaanu Baabel wallaay fen ngaa la <laughs> awa se yoo xam nga ne boo ayee tàkkusaanu Baabel day neex day riis ndax nag tabaarkalla macha allah sama doom ji jëkkëram koo bëgg sama doom ji nga xam ne jëkkëram da koo jox cër teg ko palaasam nopp ko hmm, boo ayee tàkkusaanu Baabel Sadikh Thiam dina la jàppale ba Sénégal yëpp xam ne jàppale nañ la awa cheikh tàkkusaan bi nag boole àndandoo famille bi yépp daal di ñëw ñu ñu gëj a gis ak ñi ñi nammoo nag ñépp daal di ñëw ñu sañse ba rafet jokkoo joxante ay teraanga mhm. defante ay teraanga defante it suñuy xeetu baax baax ndax boo nee ñeeño bala mañ sa ñun lool rek lañu xam kon bis boobu du bis bu ndaw bis bu rëy la ñu jël ko teg ko ci sa loxo mhm. loolu du kaa de ndax tàkku saanu baabel ku nekk xam na ni at bu nekk day am ñu ci taxaw nag taxawaay bu rafet xam nga lan ngeen war a wax ci aali laj ndax nag man na bu samay wax nëbbuma ko dama naan ko rëcc ci digg ba xam nga lu tax ndax bëgg seede na Gueye yow lan mooy sa problème ak jara laaj anam lool ngay laaj ha ah, tante ko ri tey nga dégg nag li ngay laaj ngay dégg xam nga luy sama problème mooy kii bëgg maa def wujju bëgg maa def nawle duma ma nawleem nag du ma wujjam du ma moroomam du ma màppandawam na ma baax lii laa wax <laughs> seen yii laa bëgg ngeen teg ko ci suuf ndax taluñu ko umu damaa bëgg nga déglu ko lu am solo la wax waaw joojo yoway appartement bi bu ko waxati sa gémmiñ parce que appartement bi du pour yow mi ngi gis nga appartement bi ngeen di wax jéeg bi ko war a jël ci biir kër gi da ko fee da koo liggéey gis nga ne Gueye appartement bii awa pen mee sama doom yaa dégg ndax nag baabel la te dëkk fee muñ awa nag gën a jege gën a yey te say deret wax nga dëgg yaa wax loolu waa tey laa leen di won nag la ma appartement bi jarat hmm? <laughs> Eh, yow ay Nabou lii laal dee lii mooy laal dee appartement bi bakkan lay laaj bii bakkan baa xam ngeen loolu ku bàyyiwul appartement ba bàq ya jaral na ma lu ne nag mi ku ko tudd rek muuma ba faw mbaa bàq ya rek jaral na ma lu ne appartement bii dama cee gar sama tànk tubéy loolu leen ci bañ bañu ma ko ci koko lay lay laaj nag yow moom laal nga ko rek mooy yaay kooka laay laaj. ah. salaamaaleykum. maaleykum salaam. lii la ñuy wax. werante xuuxaan tubay. faa ñëw nga. mbaa am ngeen appartement bi man moom pare naa def naa samay achat changé naa samay peinture habillé naa sama sama sama sama lépp ngi tegu toog man yéen rek laay xaar fi mu ne yéen rek vous cédez la passage je viens et je rentre ah. Je vais annoncer affaire man ma pas problème d'accord vas-y. on t'attend da ngay sete. si waat si Inch'Allah. Eh, eh. nouvelle bu neex. maaleykum dama te toog fii. toogal. Hmm. benn question laa lay laaj te bëgg naa nga tontu ma si lu leer naññi. ban question. laay pen yaa def wala defoo Tidiane indil na ma ay preuve yu leer te wax na ma lépp bëgguma tëb nag accusé la ndax daam lu ma dal la fois passé yaa def wala defoo. mais lan laa def. Eh, Ablaye Ablaye yow laay waxal ay kilifa ñoo fi toog bu fi yee fitna bay xawi sa sutura nag laa la wax. mais père. wuy ma yow li nga def noo ko mënee laay pen yow laay pen ma wóolu la jël responsabilité yu mag tekke sa loxo nii nga may fayee yow li sa soxna bu ko yëgee lan lay def. suñu askan nga jël xëpp ci suuf xajamal ko sel faañe ko yow doo nitu dara yaa bon Sadeex Tijaan mi boo ko xoolee xam ne day fen man bi may indi Xadi sama appartement jëlu moon intention pour violer ko dama doon fësal sama yéene rek lan kii lan lay wax eh karasif eh. waaw papa defal naa defal naa papa papa bàyyi ko Ablaye man la bàyyi ko dinaa ko lijjanti. papa bàyyi bàyyi ko bàyyi ko nga toog bàyyi ko. papa bàyyi ko eh toogal toogal wéro toogal papa toogal. yow yaa ngi yéeg. sa xarit mu ndaw mi juddu bëri na yow moo ñëw. yow eh. moom nga ne eh, kan nga def appartement yow. ah loola la. loolu baa ngi am. waaw lan la. gémmiñ gi yow a mën a wax yow. non yow nit nga yow. dama nelaw. Ah, da ngay nelaw di nga yeewu yow. non da ngay nelaw di nga yow yaa bon yaay mbaam. yow tayal sa bés yow. waaw laaj yow nit nga yow ak yow li la famille bi def yow ah. waaye yow tey mën naa la leer ne mën naa xamante yow ci yow la ma yabal yow. yow dinaa la lekk comme kuy lekk jën yow. dama juum dama nelaw. nelaw ko yow yaay xaj. yow lan la yow looy yuuxu nii. Eh, may ma sama jàmm yow. yow li xew mënoo koo xam yow lu dal xale càmm rek yow yaa ko yow parce que boo amoon seetlu ak taxawu sa njaboot di nga xam li li xew yow. lan la yow gaawee ma ma jàmm. du ma la gaawee boo jugee di xas tiijaan rek gu gu dégg bëccëg lay pen moo la doon sa doom yow. lay pen man. violé wu ko de. consentement mutuel yow doo tëj xaw ma consentement xaw leneen góor kii du ma si xool mbokk du ma si xool dara kaso ba la jëm te di nga fa yàgg trop yow. kaso bay bay bay yow kaso bay xaar man léegi laa ko liggéey. bay sama business yow bay sama business yow da ngaa bay sama dama non non. sama sakara xale bay ma. dégg nga bay dégg nga bay dégg yow ki lay ñaaw la bay fa. bay ma laa la yow am nga loo xam bay bay ma naa ko bay bay bay bay ay sakara yaa bay bay bay yabal yabal yabal xale bay ma xale yaa ma yàqal bay ma